قرنا من نوره نيل من الله من الوعي قرنا من نوره نيل من أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم wa radiyallahu taala an qutbil maktum mawlana ahmed tijani sharif radiyallahu taala anhu wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit ñi mbokki téléspectateur Thiam Sono TV tabarakallahu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen eh, bàyyi seen wàccuwaay ku ne fa nga fekk nekk ñoo ngi la fay fekk ah di la jox suñu loxo xol tabarakallahu nuyu la ziara la waaye jiital ci nuyoo bi ñi nga xam ni ñoom la yàlla jiital ci diine ji bu ñu nuyoo kilifa diine yi nga xam ne ñoom ŋànk mboolem tariqa yi nekk Sénégal ak lu ko wër waaye ñu xasal ci suñu sëriñ suñu waju suñu maam sëriñ Babacar Sy Mouhamadunil Mansour ki nga xamante ni moom la yàlla teg ci euh, kër gi mu jiite mboolem taalibe cheikh yi waaye nuyu ay rakkam Cheikh Al Hadj Malick Sy sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ñu yóbbaale mbooteem njabootu Cheikh Al Hadj Euh, njaboot Cheikh Sidi Ahmed Tijani nekk waaye noonu la ñuy nuyoo njabootu Cheikhu Tijani yi nga xam ne ñoo nekk fi Sénégal rawatina Pikine buñ ci nuyoo Chérif Abdoul Moutalib Tijani mu yóbbaale mboolem njabootu Cheikh Sidi Ahmed Haydara Tijani tabarakallahu ak mboolem njabootu Cheikh yi nekk Pikine ak yi nekk ci kaw suuf yëpp waaye noonu la ñu nuyoo ñi nga xam ni ñoo toog ci seen kër yi ci seen saali ah jàkkaarloog seen télévision bi nga xam ni moom la ñu taamu tabarakallahu di ci am Sunu TV ñu ci euh, nekk ak yéen altine bu jot tabarakallahu di ci waxtaan ak yéen di ci nafarandoo ak yéen suñu téere bii di al axdari ngeen koy ànd ak seen mbokku taalibe tabarakallahu seen soppee seen xarit Babacar Sow di leen nuyu di leen ziara waaye noonu la ñuy nuyoo it ah, kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci télé bi ñoom it bu ñu nuyoo suñu sëriñ suñu mag suñu soppe Oustaz Sidi Ahmed Mbaye tabarakallahu ci jàngale bu am solo boobu ci taysiru maam Cheikh Alhaaj malik ñaanal ko yàlla sàmm ko yàlla kàttanal ko waaye noonu la ñuy nuyoo PDG télé bi Mouhamadulil Mansour Thiam di suñu soppe di suñu mag waaye di suñu xarit waaye di nuyu soppee boo xamante ni tabarakallahu ma nga ba Espagne ñu koy wax Seydi Ibrahim Diène ñu koy bëggee moom it muy soppe tabarakallahu di am di jàmm nga xam ni moom télé bii lay safoo di ko suivre émission buñ ci dugal ma ngi koy topp ànd ak ñun mbokk yi ñëwaat nañoo ak yéen eh, ci seen dars bi di al ahdari tabarakallahu ngeen koy ànd ak uh, seen mbokk taalibe altine bu jot ñu ci waxtaan ak yéen di ci nafarndoo ak yéen téere bi nga xamante ni mag ñi daan nañ ko tuddee làq jëriñu làq jëriñu mooy lan tuuti na lool ci téere ci loxo waaye boo ko déggee def ko sa bopp lu bëri njëriñ la mën nañ laa tuddee ni kii day am na xam-xam ci wàllu jaamu yàlla waaye boo ko réeree mën nañ ni kii réeree lu bëri ci wàllu jàmm yàlla kon téere boobu ngeen ànd ak ñun ñu koy topp ak yéen di ñaan yàlla defal ñu fasaxatul lisaan ba luñ ci wax rek ah, mu dugg ci noppi waaye yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne dañ doon wax qaalu sami'na wa ata'na dañuy dégg waaye dañuy topp mu mel ni bu ngeen seetloo suñu ah, dars bi ñu weesu mu ngi woon ba léegi ci tarjumaan bi ci introduction téere bi waxoon leen euh, baat bi boroom téere bi ubbee téere bi muy baat bismillahi rahmaani rahim waxoon nañ leen ginnaaw ba mu tuddee turu yàlla mu sell mi julli na cent yàlla Muhammad ak ay waa këram ak ay saxaabaam waaye mi ngi nekkoon ak yéen ci awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasxiqu imaanihi li njëkk a war ci ki ñuy wax mukallaf te waxoon naa leen kan mooy mukallaf ak critères yi ñu koy xàmmee li njëkk a war ci moom mooy mu fexe ba dëgëral pas-pasam mooy mu wéral gëm yàllam wanaa leen ni ah, jàmm yàlla nit pas-pas dafa am solo ci nit balaa nga xam ni pas-pas am solo ci nit nga doon ñaw nga ñaw ñaw ba àggal fàttee fas catu wëñ bi boo xëccee li nga ñawoon lépp day da lay topp boobaa di nga xam ne pas-pas lu am solo la ci nit kon mu kàllaf bi la njëkk a war ci moom nga fexe ba dëgëral pas-pasam waaye maa ngi nekkoon ak yéen ci ñaar fukki melo yi nga xam ni dafa war ci yàlla ndax mukallaf war naa xam li war ci yàlla war naa xam li jaadu ci yàlla war naa xam tamit li nga xam ni dafa jomm ci yàlla moo tax mu ni la faalam annahu yajibu ala al mukallafi an yacrifa maa yajibu fi xaqi mawlaana jalla wa ala wa maa yastaxiilu wa maa yajuudu léegi nag alwaajibaat yi nga xam ni ñaar fukki melo la yoo xam ni dafa war ci borom bi subhanahu wa taala parce que yii faw mu kalaf bi xam ko pour ñu mën a wax ni lii ñi tuddee tasxiqul iman moom day euh, def na ko muy wéral na gëm yàllam parce que benn boo ci bàyyi gëmoo ko rek yow sa gëm yàlla des na bi ci njëkk mooy alwujud yow mu kalaf bi war ngaa fas sa xol gëm ni yàlla ku am la parce que tamit ku amul mënta amal te foofu noonu entre parenthèse suñu maam Cheikh Alhaaj Malick gàgganti nañu ci boo demee ci xilaasu zahab mi ngi lay wax naan alhamdulillahi dil ijaadi muy lan ni'matul ijaad kon moom génn na ci cadre am mu ni dil ijaadi yàlla mi amal kon ku amul mënoo amal kon yow mu kallaf bi war ngaa xam gëmmi ni yàlla ku am la ndax ki am moo mën a amal li am ci kaw suuf ndax bu yàlla amul woon kon euh, adduna bi du existe waaye am gi yàlla am te jugewul ci kenn moo tax mu mën a amal li nekk ci kaw suuf afillaahi xaq afillaahi shakkun fatiri samawati wal ard waaw kon nga gëm ni yàlla ko am la <clears throat> beneen bi mooy alqidam nga gëm ni yàllaa fi jiitu waaw alhamdulillahi dil ijaadi wal qidam waaw nga gëm ni yàllaa fi jiitu xam nga yow mi toog jàkkaarloog télé bi jiitu ak njëkk bokkul <clears throat> njëkk kuy rawante moo koy def diw de da doon rawante ak diw kan moo njëkk ñu ni diw la waaye jiitu nag kook bam fii nekk dara new fi bam fi nekk moom kase dara nekk fi moo tax mu ni la gëmal ni yàlla moo fi jiitu wala mu ne huwa al awalu huwa al wa huwa bi kulli shay'in alim moo fi njëkk moo fi mujj moo fi jiitu te lépp fi nekk rek yàlla lu ko ku ko xam la tamit ni albaqaau yàlla day moo fi des bu ñëpp demee yàlla fi des ndax kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ñetti ngi nii kenn ci mucc kullu nafsin daiqatul mawt kullu man alayha faan kullu shay'in halikun illa wajha waaw beneen bi mooy tamit al muxaalafatu lil xawaadis nga gëm ni yàlla ku wuute la ak nit ñi boo demee ba koy tëkkaleeg nit ñi rek mooy yaa ngi def shirk looloo tax sax moom buggul ku ko utal doom ndax qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla kenn du ko utal nend kenn du ko utal doom amul doom amul xarit amul ndendandoo moom yàlla waaye nga gëm ni ah, yàlla daal mooy taxawe boppam soxlaalul kenn dara ndax nit tax boo soxlaa dara da nga naan allahumma yàlla soxlaalul kenn dara waaw man kaana allahu man kaana lillaahi kaana allahu lahu da nga dégg naan Ah, ku nekkal yàlla yàlla nekkal la yàlla soxla ko nekkal déedéet maanaam ah, ku nekk ca la la yàlla digal nga def boo ko defee day yàlla nakkal la waaw yox la yàlla soxlaalul kenn dara ku dimbali yàlla yàlla dimbali la yàlla soxlawul ndimbalu kenn daf sa bopp ngay dimbali yàlla ñëw gën laa dimbali waaye soxlaalul kenn dara nga gëm tamit ni yàlla ku wéet la ci nguuram gi ku ci wéet la amul kum ci tàggu ci ay décision am déedéet amul kum ci tàggu ci ay décision am moom borom bi subhaanahu wa waaye tamit nga gëm yàlla ni ku am kàttan la yàlla nga gëm ni borom kattan la waaye tamit nga gëm ni boroom nammeel la ndax moom euh, fa ma shaa wa ma lam yasha fa mumtaniun kayfa shahtakam lu ko neex lay def te du ci tàggu kenn lu mu nam rek moom yàlla def ko te nag boo ci bëggee noppalu da koy nangu wama ma yafaalu lhaadi ljalilu bi xalqihi fa daaka jamilun yartadihi munibu la maam cheikh ulhaaji malik wax yàlla lu mu def ci nguuram gi rek dafa gën waaye nga gëm tamit ni yàlla boroom xam la mbokk yi waaw yàlla boroom xam la moo gën a xam lépp ndax ku xam rek moo la xamal ah nga gëm tamit ni yàlla eh, tabarakallahu kuy dund la te du fi jóge ñëpp a fi jóge ba mu des moom kullu shay'un halikun illa wajhahu nga gëm ni yàlla kuy dégg la waaye déggam gi nag tekkiwul ni dafa yor ay nopp comme ñun déedéet yàlla kuy gis la gisam gi tekkiwul dafa am ay bët comme ñun déedéet waaye nga gëm ni kuy wax la boroom kàddu la ku am kàttan la borom nameel la boroom xam-xam la yàlla day dund te du fi jóge moo gën a dégg ñëpp yàlla kuy gis la tabaarakallahu ñaar fukki melo yi yëpp war na ci mu kallaf bi mu sàmmoonteeg moom ba gëm ko waaye it nga ni am na loo xam ni dafa jomm ci yàlla mooy lan tabaarakallahu lu ci mel ni lot yàlla lottul ci dara yàlla du gëmmentu yàlla du nelaw la taquduhu sinatun wala nawmun ah yàlla soxlaalul dara ci jaamam ah yàlla amul doom amul ndey amul baay soxlawul ndimbal ah borom kàttan la kon nga dégg ci moom yàlla lottul borom sibeel la yàlla réerul gumbawul texul luwul tabaarakallahu muumawul tamit teg ci yii ay sifaat la yoo xam ni dafa jomm ci borom bi subhanahu wa boo gëmee yii yépp nag bu boobaa nag ci la ñuy doog a wax ni day ah tasxiqu bil imaani nag am na moo tax mu ni la awalu maa yajibu ala al mukallafi tasxiqu imaanihi li njëkk a war ci mukallaf bi mooy mu fexe ba dëgëral pas-pasam wéral gëm yàllam gëm yàlla boobu nag ah, ñaar fukki sifaat yi melu ci yàlla ak li yàlla jomb ak li dagan ci yàlla yépp dang koy gëm boo ko gëmee ba pare nag ñu ni diw mii day pas dëgër na waa léegi ñu wax ni gëm yàlla bu fekkoon garab la ndox ma koy suuxat pour mu màgg mooy jëf ya dama ni gëm yàlla bu fekkoon garab gu ñu jëmbat la ndox may suuxat garab ga pour mu mën a màgg am meññiteef mooy jëf ya ngay jëf moo tax mu ne la nag ginnaaw ba nga wéralee sa gëm yàlla yow mu kàllaf bi lu ca topp mu ni summa maarifatu maa yuslihu bihi farda aynihi tabaraka allahu léegi mënoon nañ ci yaatal lu gën a yàgg waaye eh, sàmmoon waxtu wi muni ni ginnaaw ba mu kàllaf bi ba mu dëgëralee pas-pasam wéral na gëm yàllam gëm na yàlla moo bind malayka yi gëm na ni yàlla moo bind téere yi wàcce ko ci yonent yi gëm na ni yàlla bind eh, yonentaam yu tedd nga xam ne almaasumiina lañ du ñu mooy yàlla nga gëm ni yàlla ah, moo bind yawmal qiyaam nga gëm ni yàlla mooy teg ndogal bu neex ak bu naqari nga gëm tamit yi nga xam ne dafa jomm ci borom bi subhaanahu wa taala nga gëm li war ci sa digganteeg sa borom yii yëpp boo ko gëmee nag ba pare léegi nag yow jëmbat nga garab gi mooy tasxiqul imaan yow jëmbat nga garab gi yow mbokk léegi garab nag boo ko jëmbatee bàyyi ko fa rek taroose woo ko est-ce que dina jebbi dina màgg déedéet dafay dee léegi nag ginnaaw ba jëmbat nga garab gi mooy tasxiqul imaan kon da nga ko war a roose lan nga koy roosee moo tax mu la ndox mi nga koy roosee nag summa maarifatu ginnaaw ba nga wérelee sa gëm yàlla summa topp nag maarifatu mu dem xam lu ji waaw doo wax summa taarif topp mu xam moom mi ngi doog a ñëw soreegut xamagul dara kon ku xamul dangay dem xam lu ji fasalu ahla dikr in kuntum la taalamun waram na summa topp ginnaaw ba mu jëmbatee garab bi nag maarifatu daf ko war a suuxat daf ko war a arrosé arrosé bi mooy lan na dem xam lu ji maarifatu mu dem xam lu ji demal ci benn oustaz Sidi Ahmed Mbay nga xam ne tabarakallahu yàlla may na ko xam-xam macha allah nga dem toog ci peggam mu xamal la naka ngay roosee garab googu ban ndox ngay utilise ndax ndoxu asib ngay sopp ci garab gi ndax ndoxu póotin nga ciy sotti ndax ndox mu set nga ciy sotti ndox moom mooy lan moo mu ni la gannaaw ba nga dem xam lu ji lan maa loo xam ni xam-xam boo xam ni boo ko xamee yuslixu dana yéwénee bi ca xam nga nga ko xam farda aynihi faratay jëmmam est-ce que dégg nga wax ji ginnaaw ba mu jëmbatee garab gi daf ko war a suuxat garab gi mooy tasxiqul iman léegi ni koy suuxatee nag mu ni la summa topp ginnaaw ba mu wéralee gëm yàllaam maarifatu mu dem xam lu ji ñu xamal ko maa xam-xam boo xam ni bés bu ñu ko ko xamalee ba mu dégg ko yuslixu dana yéwéne dana defaroo dana baaxee bi ca xam ngañ ko ko xamal farda aynihi ay faratay jëmmam waa mooy fardu ayn dafa am lu ñu tuddee fardu ayn am lu ñu tuddee fardu kifaaya fardu kifaaya Mansour mooy loo xam ni nit ñi bu amee ñenn nag ñu ko def wàcc na ñeneen ñi lu ci mel ni masalan jullee néew du farata ci ñëpp bu ko une partie defee wàcc na ñi ko fekkeewul loolu lañ tuddee fardu kifaaya fardu ni nag mooy say faratay jëmm mooy loo xam ne yow yaa koy defal sa bopp nit du la ko defal pour nga dégg ma ma wàccee niveau bi exemple bu terre à yàgg naa kaa wax ma ni tey ku toog ak sa soxna sa soxna nag laa wax waaw mu leer boo toogee sa soxna Mansour euh, mu togg ginaar soxo ñëw tegal la ginaar gi ngeen toog di lekk soxna si mën naa dagg ci ginaar gi sexal la nga ŋaang sex kon yow dagg bi ak seex bi wàcc na la loolu lañ tuddee fardu kifaaya ndax gannaaw ba soxna si daggal na la ba sexal la yow borom kër gi kon dagg beek seex bi daf lay wàcc loolu la ñu tuddee fardu kifaaya tabarakallahu am naa caameen yeeg saaree ni ñoom instant yi ñi ngi bëgg ndax li ma tudd waxu lekk moom boo ko tuddee rek dootuñu ànd ak seen sago waaye nag tibb gi mu tibb sexal la mooy fardu kifaaya wàcc na la waaye est-ce que mën nga muusa ki muus ba soxna si sàqamil la wannal la yaakaar naa bu fekkee def la sexal ngay xaar mu sàqamil la wannal la boo meetu ñam ngi dina nëpp ci biir gémmiñ kon sàqami boobu ngay sàqami ak wann bi ngay wann jàllale ko loolu lañu ñu tuddee fardu ayn mooy faratay jëmm yaay sàqamil sa bopp wannal sa bopp pour ñam bi mën a jàll kon gis nga différence bi fardu kifaaya bu ko ñenn defee wàcc nañu ci des waaye fardu ayni nag yaa koy defal sa bopp kenn du la ko defal waa léegi nag wax na la ndox mi nga war a utiliser pour suuxat garab yan ndox la mu ni ka ahkaami solaati lu ci mel ni attey julli tabaarakallahu kon gis nga waaye loolu ah, ci émission bi ci topp laa la koy leeralal kon gis nga ni yow mu kàllaf bi ginnaaw ba nga wéralee sa pas-pas te pas-pas bi mooy lan fexe nga ba wéral sa gëm yàlla à travers nga gëm waajibaat yi war sa digganteek sa borom nga gëm yi nga xam ni dafa jomm ci borom bi waaye nga gëm ah, yi dagan sa digganteek sa borom loolu mooy wane ni yow kat jël nga garab gi jëmbat nga ko waaye jëmbat garab rek taxul mu jebbi taxul mu màgg faw nga suuxat ko ak ndox waa est-ce que boo jëlee ndoxu acide ñëw sotti ko ci garab gi dina màgg est-ce que boo jëlee ndoxu póot sotti ci garab dina màgg est-ce que boo jëlee ndox mu sell sotti garab gi dina màgg moo tax mu ni la nag ginnaaw ba nga jëmbatee garab gi da nga ko war suuxat te suuxat bi suuxat garab gi pour mu màgg mooy jëfi moo tax mun la ginnaaw ba nga wëree la sa pas-pas summa topp maarifatu mu dem xam lu ji maa xam-xam boo xam ni buñ ko ko xamalee yuslihu dana ca mën a yéwéne bii ca xam gam ko xam farda ay nii faratay jëmmam yan mooy faratay jëmmam boo ma toppee ci émission bii di ñëw ma daal la koy leeralal faram fàcceel la ko nga xam ni yiimu lay tuddal nit du la ko defal sa ndey du la ko defal sa baay du la ko defal sa sëriñ du la ko defal yaa koy defal sa bopp kon tabaarakallaahu euh, foofu la ñuy wàcce suñu kàddu di nuy bu baax tabaarakallaahu suñu suñu suñu sëriñ Cerno euh, Cheikh Ahmed Tidiane Thioune tabaarakallaahu nga xam ni ci ci keppaaram la ñu nekk di di góorgóorlu suñu wàllu alluwa ñaanal waa daara Cerno Malick Thioune ñëpp tabaarakallaahu xam naa ni di leen euh, invité it ci suñu ziyaara bi nga xam ni ñu ngi koy def fii ci daara ji ci ginnaaw SDE bi muy samedi biir ñëw ak vendredi tabaarakallaahu ñu koy def chaque année di ziyaara daara ji mooy le 17 ak le 18 mars di semaine bi ñu nekk ñu ngi ci woo mboolem koy jullit rek seen soppe euh, Serigne Babacar Diop moo war a taxaw foofu ci samedi bi tagg fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii def waxtaan bi mooy oustaz Chaybatu Ndiaye di njabootu Cheikh Alhaji Abdoul Aziz kon ñu ngi ci woo ñëpp uridu illa al islaha ma stataatum wa ma tawfiqiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نورنا من نوره نيل ما من الواد نور من نوره نيلو